أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey ñu ngi jël ad darsu saabi asar muy dars fukkeel ak juróom-ñaar ci baabu tafsiru tawxid wa shahaadatu an la ilaha illa allah bunt bi ñuy jël tey mooy buntu bi ñu cheikh bi di firil tawxiid mooy lan ak naka la ñuy kennale yàlla tabaraka wa taala naka la ñuy wéetale yàlla buntu boobu balaa ñu ciy dugg dina am min ahdafi dars lan mooy jubluwaayu jàngale leçon tey bi kiy jàng wala kiy déglu leçon bi war na cee xam ñetti mbir bi ci njëkk mooy an yataarrafa al muslim ala maana tawxid jullit war naa dégg ci dars bi maana tawxid lan mooy tawxid léeg-léeg ci waxtaankat yi lu baree bare ñuy dégg ñuy wax baatab tawxid tawxid saa yoo ko déggee mooy kennal yàlla naka la ñuy wéetale yàlla tabaraka wa taala jullit naka lay wéetale yàlla ñaareel bi mooy an yubayina muslim atharu shirk fi l ibada dars bi leçon bi dafay leeralal ab jullit jeexitalu bokkaale ci jaamu yàlla yi jullit bi buy jaamu yàlla waaye jaamu yàlla yi mu ciy rax bokkaale bokkaale googu muy rax ci jaamu yàlla yi yan jeexital lay def ci jaamu yàlla bi loolu ab jullit dina ko jàng ci dars tey bi ñetteel mooy an yuridal muslim amsila tubayinu jahlu kasirin min annaas bi maana la ilaha illa allah nee na jullit bi dana jële ci leçon tey xam-xam ay misaal yu bëri yoo xam ne dina ko won lu ëpp ci doomu aadama yi lu ëpp ci jullit yi dañoo réeree lan mooy laa ilaha illa allah tey booy xool doomu aadama yi ngay xool jullit yi li ëpp ci ñoom li nga xam ne dañoo réere laa ilaha illa allah ñu bëri comprendre uñ ko même ci tafsir bi sax di nga xam ne doomu aadama yi jullit yi rawatina ñu bari ci ñoom dégguñu laa ilaha illa allah di nga jàng ci leçon tey bi ne yéeféer yi màkk yéeféer yi màkk yonent bi waxoon wax leen laa ilaha illa allah ñu lànk ñooñu ñoo gën a xam maana laa ilaha illa allah ak ñii bu ñëwee ci mataxal dugguwaayu bunt bi danañ gis tawxidul uluhiya wal maqsuudu wa huwa al asaas fala budda min maarifati maanaahu li kay nu xaqiqahu fi xayaatina suñuy xaaj tawxid danañ gis tawxid mu nekk ñetti xaaj ñu ne tawxidul uluhiya tawxidul rububiya tawxidul asmaai wa sifaat tawxid bi nga xam ne moom mooy tawxidul uluhiya moom buñ koy jàng dégg dëgg-dëgg lan lañ ciy jële al maqsuudu lan lañ ci jublu moom tawxidul uluhiya te moom tawxid boobu mooy asaas mooy fondement di nga yëg ne ci tawxid boobu ci kennal yàlla boobu wala budda min maarifati maanaahu il faut ñu xam maanaa bi lu tax li kay nu xaqiqahu fi ayatina ngir ñu mën ko dëggal ci sunu jullit yi suñu comprendre tawxid dëgg dëgg dëgg du ñu mën a dund l'islam comme tey li am da ngay gis da ngay gis jullit bu nekk ci jàkk ngi julli waaye ndigg li ngi takk ay gàllaaj ay béjjén wala jullit boo xam ne mi ngi aji màkk mais da nga gis bokkaale yi muy def takki ay gàllaaj dem ci benn buxaaba kenn du wax sëriñ dañ naan mu dem ci benn buxaaba defal koy ay gàllaaj pour mu dellusiwaat day tukki ah jox ko ay paftan te pourtant jullit boobu nee na moom gëm na yàlla tabaraka wa taala nee na moom gëm na yàlla kon ku gëm yàlla tabaraka wa taala dégg tawxid dëgg foog tawxid daal di dugg ci sa dund sa dund gi foog wéetal yàlla bokk ci soo gëmee yàlla kese kese kese kese keneen amatu ci place ci sa xel ak ci sa xol sunu boroom subhanahu wa taala wax na ci leçon bii ñuy jël tey nga xam ne benn aaya kese la aaya baa ngi nekk ci suratul isra aaya 57 borom bi tabaraka wa taala mu ne ulaika alladina yadcuuna yabtaguuna ila rabbihim alwasila ayuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yaxaafuuna adaabah in adaaba rabbika kaana mahzuura sunu borom subhanahu wa taala mu ne ulaika ñooñu allazina ñi nga xam ne yaduuna yaabuduhum ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di jaamu wala ñu ngi leen di ñaan yenn saay sax yabtaguuna ila rabbihim alwasila ñuy sàkku ci seen boroom ak egg di jaamu ay nit suñ la nee ñi ngay jaamu tax nga leen di jaamu nga ni ñii ñoo may eggal ci yàlla baat bi wasila ci Sénégal ni ko waa Sénégal di firee ak ni ko waa ahlu sunna wal jamaa di firee du benn verset baa ngi suratul isra 57 isra 57 muy baatu wasila mu ne ulaayka ñooñu allazina ñi nga xam ne yaduuna ay yaabuduhum almushrikuun ñooñu bokkaalekat yi di jaamu di leen woo di leen ñaan wa yataqarrabuuna bihim ila allah ñuy jege ci ñooñu yàlla waa dañuy jaar ci ñii ñii ñooñu yóbbu ci yàlla ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ñuy jegeel yàlla ñii ñooy moyen sunu moyen lu nuy eggloo ci yàlla tabaraka wa taala da ngay dégg ñu ne boo bëggee egg ci yàlla da ngay jaar ci diw mu jaarlal la ci diw mu yóbbu la ci diw mu yóbbu la ci diw mu yóbbu la ci yonent bi yonent bi yóbbu la ci yàlla loolu ngay dégg baatu wasila lu muy tekki mooy kullu ma yataqarrabu bihi al abd lépp lu lay jegeloo yàlla yow jaam bi nga ciy jaar pour loolu jegel la yàlla loolu mooy wasila misaal julli wasila la moo lay yóbbu ci yàlla tabaraka wa taala koor wasila la aj wasila la bépp jaamu yàlla boo jóg di def jaamu yàlla boobu mooy moya pour yóbbu la ci yàlla subhanahu wa taala waaye nekkul mbindeef nekkul doomu aadama doomu aadama bi naka la lay yóbbee ci yàlla tabaraka wa naka fan la lay fan la lay fan la lay dugal fan fan la la doomu aadama boobu di dugal pour yóbbu la ci yàlla mbokk yi daf lay boot wala daf lay sex wala daf lay won na kon baat bi ñun niñ ko déggee fii ak ni ko ahlu sunna wal jamaa di firee du benn bépp jaamu yàlla bu la yàlla sant loolu mooy moye bu la yóbbu ci yàlla tabaraka wa taala kullu ma yataqarrabu bihi al abd lépp loo xam ne ci jaamu yàlla yi dafay jegeeloo joom doomu aadama bi yàlla loolu moom mooy wasila suram borom bi nee na yéen ñooñu ngeen yaakaar ne ñooñu ñoo leen di yégloo ci yàlla ayyuhum aqrab yaag ñoom ku gën a jege yàlla léeg-léeg nga jàpp ne benn waaye moo la gën a jege yàlla fekk yow yaa ko gën a jege yàlla ayyuhum aqrab yéen ak ñooñu kan moo gën a jege yàlla wa yarjuuna rahmatahu ngeen di yaakaar yërmandeem wa yaxaafuuna azaabahu ngeen di ragal mbugalam inna azaba rabbika kaana mahzura mbugalu sa mbugalu boroom kaana nekk na mahzuran yanbaghi alxazaru minhu lu ñu war a moytandiku la ndax mbugalu yàlla subhanahu wa taala xejul ci doomu aadama waaye waruñu yem rek ci moytandiku waaye wal xawfu min wuquihi war nañoo moytu lépp lu ñuy dugal ci mbugalum yàlla tabaraka wa taala war nañ ko ragal war nañ koo sori ndax mbugalum yàlla xejul ci nit kon aaya bi suñ delluwaatee ci anasir yi te mooy anasiru dars dinañ gis al malaika wal anbiya wa saalixuuna fuqara ila allah malaaka yi ay mbindeef yu màgg lañ ñoom duñu am bàkkaar malaaka yi duñu am bàkkaar kon mbindeef yu sell lañ bañ nañ ko sax ba ñoom dëkkuñu kaw suuf ñoom kaw asamaan lañ dëkk bañ nañ ko ba ñoom ah ay ruu lañ duñu ay bakkan waaye loolu lépp wasaalixuuna ak nit ñu baax ñi ñooñu ngeen di dégg ñu naan ñii diw ku baax la diw waliyu la wala diw nangam la wal ambiya ak yonent yi alayhimu salaam ñetti groupe yi boo leen boole yëpp li ñuy baax baax li ñuy sell fuqara ila allah ñu soxla yàlla lañ ñoom ñëpp dañoo aajowoo yàlla ñu ñàkk lañ ay pauvre lañ ci kanamu yàlla subhanahu wa taala ñetti groupe yi yëpp malaaka yi yonent yi ak nit ñu baax ñi kon bayyanatil aaya alkarima aaya bu màgg bii dafa leeral ann allazina yad'uuhum ahlu shirki min almalaika ñooñu bokkaalekat yi di woo ci malaaka yi wal ambiya ak yonent yi wa saalihiina ak nit ñu baax ñi xalqun min xalqillah mbindeef lañ ci mbindeefu yàlla yi kii ngay woo di ko yaakaar ne dina la mën a musal misaal nga yor kaasu ataaya kaas bi rëcc daanu nga ni yaa sàmba lan nga bëgg ci sàmba ba nga woo ko loo ci bëgg pour mu téye kaas bi kaas bi bañ a toj wala nga fakkastalu nga woo moodu loo soxla da nga bëgg moodu téye la ba bul daanu wala bul gaañu kooku nag moodu moomu wala sàmba moomu ay mbindeef lañ woowal yàlla mi leen bind wala nga dugg gaal dem ba digg géej mbaa bato bato bi bëgg a lab nga gis ñuy xettaliku ci ay nit comme tey oto yeeg lépp day am day dégg xettaliku ñenn ñi sax dañuy fekk ne kooku ñuy woo dafa dee existé tul ci kaw suuf yàlla subhaanahu wa taala day joxe misaal ci quran mu ne xam nga kan moo gën a réer ñu ne ah mu ne kuy woo ku ko dul dégg wa man adallu mimman yad'u min duni illahi man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ki réer dëgg mooy kii woo ki ko dul wuyu woote lan lay jëriñ woote lan lay jëriñ ki ngay woo pour mu wuyu la mais ki ngay woo bu dee du la dégg te misaal bu doy waar moo nekk foofu ñun ñi ci biir jàkka ji am na ci lenn ci ñun ñoo xam ne suñuy bàyyi ñu ngi dund kan la fi papaam di dund fii ci biir yàgg jumaa ji sa papaa ngi dund sa papaa ngi dund sa papaa ngi dund seen papa mu ngi dund suñ leen dóor doon dóor léegi ci biir jumaa ji ngeen di wax seen papa ngeen koy woo ndax dina ñëw lu tax du ñëw ah te mu ngi dund mais nekk fi du ñëw léegi bu dee ku dee nag boobu gën a garaaw yow kii ngay woo sax moom mi ngi fi mi ngi dund waaye ci barab biñ lay mbugalee moom nekku fi waa léegi nag ku dee tey ñaata sénégalais ñooy woo ku dee ah ñaata ci ay sénégalais ñoo xam ne ñu dee lañ gëm kon ñooñu malaaka yooyu wala nit ñu baax ñooñu wala yonent yooyu dañu bëgg jaami yàlla yi xam ne ñooñu li ñuy baax baax xalqun min xalqillah ay mbindeef lañ ci mbindeefu yàlla yi mbindeef lañ mbindeef lañ yàlla moo leen bind yataqarrabuuna ila allahi bi ibadatihi wa taatihi wahdahu ñooñu ñuy woo di leen jegewoo yàlla subhanahu wa taala ci jaamu gi ci topp gi moom kenn te ngaa topp yàlla rek nga bañ a wiiri yoon wi te ngaa topp yàlla rek moo gën li ñuy def tey ah man damay jàpp ci diw jiw jàpp ci diw jiw jàpp ci diw loolu day yàgg defal direct rek te kii ngay jàpp yàlla laaj na la ci alquran ne la ayyuhum aqrab yéen ak ñoom kan moo gën a jege yàlla kon wa yarjuna rahmatullahi ak yaakaar yërmandeem wa yaxaafuna azabahu ak ragal mbugalam ñooñu laa yamlikuuna kashfa durri munuñoo dindi lor misaal laay joxe tey ñaata ci ñun ñu seen kër nekk ci ndox bëri na wala bëriwul ñooñu seen kër yi nekk ci ndox amul ci ñoom ñoo xam ne yaakaarul leen ne ay nit lañu gëm di leen woo lu tax nit ñooñu téyewuñ ndox mi damay fàttaliku ndeysaan benn nawet xaw ma daaw la xaw ma daawaati jéeg am benn sëriñ bi ñu wax ci Sénégal dafa puus géej gi ndox mi daal di ñëw këram ba kër kër doomam yi ba labal saal bi labal saal bi ñu indi ji télé RTS naan xoolal gouvernement bi def fi dara xoolal saalu sëriñ bi nu mel lu tax puusuñu ndox mi télé ñu génne ko télé fëtë yi di tëmb kuy puus géej kay war ngaa mën a téye ndoxum taw wala waaye nag gis ngeen ay caaxaan a bëri Sénégal rek waaw ay caaxaan dafa bëri Sénégal mbokk yi ay caaxaan dafee bëri ay def defle ay ay ay xarfa fuufa ay kéemtaan ay kiraamaat nangam nangam yooyu dafa bëri fi ba nit ñi jaamuwuñ yàlla yooyu rek lañ toog di xaar léeg-léeg nga jékki-jékki rek nit ñi riirandoo daw ci benn tabax ci benn tabax ci benn ñu ne la ñu ne diw daa génn fi ci miir bi mu ngi nii taxaw ci miir bi nga gis na ñu di buuxante am na benn jigéen boo xam ne tañt lañ ko fa ba mu avorté ay milliers de personnes blessées ñu yóbbu leen hôpital te dara nekk fa dara kenn feeñul ci ay miir ah yooyu ay caaxaan la dañ leen jaamu yàlla diw moom bu feeñee ci miir sax yow lan mooy loolu farata la wala sunna la léegi yow da nga war a dem foofu buuxante ji pour gadee loolu muy tekki ma ni tabaxi màkka sax ñoo ëpp barke te yonant bi du fa feeñ te yonant baa ngi fa tëdd kaaba gi sax moo ëpp barke mais kenn musul léegi ci àdduna bi ñu naan yonent bi daa feeñ ci kaaba gi mu ngi nii gars yi ñëw di buuxante kenn musu ko gis jàkka ji mu tëdd sax muy midin kenn mës ta dégg sax ñu ne yonent bi mu ngi nii tëll tëll na ci ci ci miir bi wala mës ngeen ko dégg waaw waroon na mën a am nag wala kenn ci doomam yi sax wala sëtam yi nag ne tëll ci miir yi foofu nit ñi gis ko kon ibadallah mbokk yi ci yàlla nañu xam ne ñooñu laa yamlikuna kasfa durri mënuñoo dindi lor soo feebaree billahi wallahi taala ki nga yaakaar mënu ci dara te sax gis ngeen lu doy waar moo nekk foofu léeg-léeg nit dee am benn waay bu mu gëmoon ci àdduna yaakaar ko waa ji di dund moom mu dee ñu téléphoné wala ñu jël nit ne ko demal nga ni diw diw dee na mu ñëw ne diw mu ne ko ah mu ne ko ah sa taalibe bi sàngam de dee na mu tiit te loolu kañ la loolu kañ la ah lu tax moom xamuloon ne waa ji dee na koy xamul dara day tiit ne loolu kañ la dafa feebaroon xanaa xoolal xaw yëgul ne feebar fekk waa ji yenn saa yi sax mun naa def hôpital ñaari at mais du la seeti bu fekkee taalibe bu am xaalis nga nag taalibe bu foor bu am xaalis kooku day sëriñ bi mën nga mën nga koo gis mais boo amul dara doo gis sëriñ bi soo dee sax du la jullee day yónni keneen waaw yooyu dañ dañoo war a yeewu xam ne yàlla lañu war a jaamu ñooñu laa yamlikuuna kasfa durri mënuñoo dindi benn lor bu la yàlla nar a teg wala jalba nafi mënuñu laa indil njëriñ Sénégal a ngi nii courant bi coupé dund bi cher ah lu tax ñoom indi dindi wuñ ko lu tax dindi wuñ ko wala xoolal crise bu métti bii ñu nekkee ñaata ci ay nit yu ñu yaakaar lañuy wax soo dégg ñu ne fii ñi fi tëdd fii fii li fi tëdd fii li fi tëdd waaw léegi kay fii tëdd ba pare ñu am problème xanaa xamu ne affaire bi affaire ay nit ñu tëdd yàlla wax na ci suratul baqara tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat ñooñu ngeen di yaakaar wees nañ dem nañ la ñu defoon ñoom yóbbu nañ ko yéen ñii wala kum ma kasabtum yéen li ngeen def rek lañ leen di laaj ku nekk rek wa an laysa lil insaani wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura kulli imrin bima kasabat rahina ku nekk li nga def rek loolu la ci loolu lañ lay àtte kenn du àtte kenn ci jëfu jàmbur ku nekk rek li nga def mbokk yi ñii ñuy yaakaar mënuñu ñu indil mënuñu dàq lor mënuñu indi njëriñ fa kayfa yad'una ma allah kon lu tax ñu leen di woo di leen booleeg yàlla wa kayfa bi man huwa duunahum kon bu fekkee nee nañ malaaka lu muy baax baax waroo koo ñaan waroo koo jaamu yonant lu muy baax baax waroo ko ñaan waroo ko jaamu nit ku baax kon keneen nag bu fekkee waruñu jaamu Abu Bakar Umar Usmaan Ali waruñu jaamu yonant bi Muhammad waruñu jaamu Jibril Mikaayil kon keneen ku dul ñooñu nag ndax am na ku gën a foor ñii ma lim kon keneen waxi noppi keneen bindeef la comme yow dama nga jaamu yàlla ni mu góorgóorloo ba nga yaakaar ci moom lu baax boo góorgóorloo noonu yàlla baaxal la wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ku góorgóor gis ngeen affaire u diine nekkul lu ñuy tëj bunt leen yenn saa yi nga wax ne benn waay laa doon dégg mu ne man danaa mel dinaa mel nu diw mel benn waay ne ko yow da nga yabaate diw kenn mënul mel ni moom loolu dafa mun nekk walla diw di nit dañoo góorgóorluwul rek mais bu ñu góorgóorloo yàlla teg ñu fa mu tegoon ñële ndax mbir mi du du lu tëju du yoon woo xam ne ku fa jaar munoo yegg ci pas-pas yi la rek ak góorgóorlu gi ku la raw rek mu ngi la rawee yitte yitte la la rawee ci jaamu yàlla subhanahu wa taala ku la dàq jaamu yàlla ëllëg yowmal qiyaam moo lay raw loolu sikki nekku ci ku bëgg ci ñun yegg rek jaaral ci yoon wi boo jaaree ci yoon yegg olof yi nee nañ ku jaar ci yoon boo wàccut même sax booy raam di nga yegg même booy raam di nga yegg jaaral ci yoon wi rek ñaareel ci anasiru dars mooy tafsiru tawxid lan la ñuy firee tawxid baat bi muy baatu kennal yàlla naka lañ koy firee al tawxid huwa ifraadu llahi bil ibada tawxid baat boobu ngeen di dégg muy kennal yàlla suñ koy firi mooy ñu wéetal yàlla ñu kennal ko ci jaamu gi ñuy jaamu yàlla jaamu yàlla kenn waru cee dugg gis nga yàlla sax jàkka yi dafa ne wa anna almasajida lillah fala tad'u gis nga de fala tad'u ma allahi ahada nga la waay jàkka maa ko moom boo fa duggee booy julli bul woo keneen waaye léeg-léeg nga dugg ci jàng ñu ne bismillah fas yéene julli ci barke diw ci darajey diw ci allahu akbar yàlla ne fala tad'u ma allahi ahad amoon na benn waay ndeysaan ci sunu jumaa ja day bàyyi ba ñu liqaam ba pare ba ilimaan ne allahu akbar di jàng duwaawul istifta mu ne bismillah fas yéene julli ci barke diw ci darajay diw ci diw mu lim ñett day lim ñetti nit te ci kaw la koy wax mel ne bilaal buy jottali nit ñi di muñ di muñ di muñ ba yàgg benn waaye ne ko yow yaa ngi yàq jaamu yàlla nit ñi xanaa xamoo lii ngay def du islam lii amul fenn ci diine vendredi beneen bi vendredi yi passé ñaata nit la doon wax ah ñett xam nga vendredi beneen bi boobu waa ji tere ko beneen vendredi bi xam nga lu def mu ñëw yokk ci yeneen ñaari nit waaye gis ngeen waa jooju xam ngeen bi muy faatu nu mu faatoo bi muy dee billahi wallahi wa tallahi billahi wallahi wa bi muy dee dafa dee ci biir néegam ba nëb ba nëb di xeeñ ci koñ bi sapeur yi ñoo ñëw ah bi koñ bi ubalee ñu naan kër gii la ñu dajji bundu kër gi dajji néeg bi ñu fekk mu saxe boobu biir bi toj na jullit day ragal yàlla jaamu yàlla ñaan yàlla mujj bu rafet waaye lu bon ku koy def ku ne ci lu bon ngay mujj wala fi nee nañ jàppkatu jaan wax leen jaana koy mujje defkatu lu bon ci lu bon rek ngay dee boo tuubulee kon surtout nag réewu Sénégal boo fi wax boo fi wax ay mbiru tawxiid dafay wax yàlla da ngay gis ka ay mer loolu yàlla naan wa ida zukira allahu waxdahu izmaazat qulubu alladina laa yuminuuna bil axira bu ñu waxee yàlla kese nga gis gars yi kanam yi ñàng mel ni dañoo wax papay kenn mais normalement yàlla kese bu ñu ko waxee ñëpp a war a am fierté parce que kii wax waxul baayam waxul maamam waxul tantaam waxul nija waxul yàlla lay wax mais Sénégal feebar bi leen dal mooy bu ñu waxee yàlla problème am wa ida zukira min dunihi nag bu ñu waxee leneen lu daa gis jë jaajëf waay gars yi commencé yuuxu waaw dig léeg-léeg sax nga gis ku may këram billahi wallahi taala loolu loolu loolu moo leen xam ne mbir mi musiba la sànq rek billahi wallahi taala revue de presse bu waa RFM gëstu bis bi waa ji doon def gëstu bis bi ci loolu la ko def nee na tey Sénégal dafa am lu fi nekk ay nit yoo xamante ne soo waxee dara rek ci seen kilifa rek ñu ne dañuy lakk sa kër wala dañ lay rey te yenn saa yi ñu wax yonent yàlla Muhammad dara ci àddina bi wala yàlla kenn du yëngu Sénégal wala waa Danemark xas nañ fi yonent yàlla Muhammad ah yu nekk dëkk àdduna bi da nga koy dégg waaye waa Sénégal mars sax du lan duñ ko def mars duñ sax yëngu mais boo waxee benn kilifa dara rek gars yi jóg dañu koy rey rey bu ngeen ko rey après yéen du ngeen da ngeen dul dee waaw waaw léegi bu ngeen ko rey yéen ñu ko rey du ngeen dee rey leen ko ba ngeen taxaw ci kanam yàlla foofu mooy mbir mi nañ ko rey dañ ko war dañoo war a bàyyi ku ñu bëgg a rey dañ la war a bàyyi ñu rey la gis nga waaje ci suratu yaasin bañ ko reyee gars yi dañ ko rey defe na jeex na moom mu nekk biir aljanna naan yaa layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin après lu xew wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin min as-sama wa ma kunna in kaanat illa sayhatan wahida soo ko rey yàlla da koy fayul te soo ko rey day shahid mais Sénégal seen xol yi ñoo dee xol yee lëndëm ndax bokkaale effectivement foog xel yi lëndëm foog bokkaale bëri parce que nit ñi jànguñ tawxiid lii ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog fukki at ak ñett di ko jàngale màkk fukki at ak ñett ba gaa yi dëgër ba xam lan mooy yàlla ñu doo ko toxu dem Medine jaamu yàlla yi commencé wàcc mais gis nga état bu màkk ñaari ràkk lañ doon def suba ñaari ràkk ngoon boobu amul juróomi julli yi su ko defee ñu xam ne loolu mooy tawxid mooy bi an tusrafa al ibada kulluha lillahi waxda wala yusrafu shay'an minha li gayrihi fa kullu man ashraka billahi taala lam tasixu lahu ibada bu ñu buggee xam lan mooy wéetal yàlla mooy jaamu yàlla yi ngay def bul ci dugal kenn bul ci boole kenn yàlla rek bul julli ba dugal ci nit bul woor ba dugal ci nit bul aj ba dugal ci nit bul tudd yàlla ba dugal ci nit sa lépp looy def yàlla moom ko bul ci dugal nit bul ci dugal leneen lu dul nit yàlla rek bu ci kenn bokk yàlla rek subhanahu wa taala bépp jaamu yàlla bu ñu dugal dara lu dul yàlla jaamu yàlla boobu wérul waqad daa sallallahu alayhi wa sallam almushrikin ila ifraadi illahi bilcibadati biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam qulu la ilaha illa allah tuflihu rawahu ahmed yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ca mag waa arab yi ba ñëpp ñëw mu ne benn baat dong laa leen di ñaan ngeen wax bu ngeen ko waxee texe dugg aljanna arab yi ne ko ban baat la mu ne wax leen laa ilaha illa allah ngeen texe fa abaw ñu lànk pourquoi lan moo tax bi mu leen ne wax leen laa ilaha illa ñu lànk parce que dañoo dégg wax bi ñoom ay arab lañ dégg nañ arab xam nañ lii lan la munoo ko wax ba pare ëllëg ñu gis la ci ci ci leneen ngi ci gis la ci xamb yi xoolal fi da ngay gis ilimaan bu am xamb est-ce xam ngeen li mu wax waxale ma ñoo ñu nekk seen ginnaaw ñu dem ñu ne ñu ne nañ dem jàkk nañ dem fële ci biir kër ga eh ok dañ leen yóbbu ba paa ba pare paa ba ba pare nga wax ak ñii nañ dem nañ dem buñ fi tak buñ fi taxaw paa ba ba pare nga gisee ak ñoom waaw kenn mun fee dégg ndax ñoom mbokk yi kon nañu xam lan mooy laa ilaha illa allah arab bi bi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax leen laa ilaha illa allah dañoo bañ dañoo lànk te xoolal lim lañ teg rek na bu ngeen ko waxee ngeen moom adduna bi moom adduna bi neex na wala neexul ah xoolal ñi gouverner Sénégal rek ni ñu noosee nit ñu nekkee ci seen yaataa yimbe ñi kon ku gouverner adduna nag yonent bi ne leen bu ngeen waxee laa ilaha illa ngeen moom adduna bi waaye ñoom dañoo dégg baat bi baat bi soo ko waxee am na loo xam ne kenn dootu la ci gisati wala ñun ñun am nañu ay xalifa général yu am xam te xam ngeen xamu seytaane la moog l'islam ça fait deux mënoo gëm xam gëm yàlla mënul nekk benn rek yàlla rek wala xam bi rek imma shakiran da ngay gis ay jàkk yoo xam ne jàkk yi jàkk dafa am xërëm ci biir jàkk bi xërëm man gis naa jàkk ay jàkk ci biir Sénégal yu am xërëm waaw fii ma toog nii mun naa la place sàngam jumaa ji dafa am xërëm place sàngam jàkk ji dafa am xërëm place sàngam jàkk ji ci bunt bi xërëm mu ngi foofu ñu suul boo waxee ñu ne la mooy tuuru dëkk bi tuuru dëkk bi ana yàlla Sénégal yéen ndakaaru gii sax dañ koy ñaanal yaa ngeen fi léegi ñuy xërëmal ndakaaru jël nag yi di ko dugal biir géej wala ñu rendi ko wala gisu leen ko kan moo ko daan jiite ab ab imaam bu faatu ñu ngi ko ñu ne jàng nañ ay kaamil kaamil dañ koy wax ni ci kaw rek pour pour pour mas pour masquer quoi mais kaamil bi amu ci jubluwuñ ci loolu du kaamil bi bu doon kaamil kese la ñuy jàng nañ jàng kaamil bi rek mais pourquoi ñu leen nag bi dund ñu dugal ko biir géej rendi ko ndax kan la ñuy jox nag bi kan lañ koy saraxal foofu ci biir géej gi kan lañ koy jox yàlla kon nañu xoolaat suñu dund nañu xam ne ab jullit mënoo nekk jullit di bokkaale loolu moo tax arab yi bi leen yonent bi waxee wax leen laa ilaha illallah ñu xam baat bi ñu lànk fa abaw an yaquluha li annahum yaarifuna maanaha la hawla wala quwata illa billah li annahum yaarifuuna maanaha dañoo lànk ndax xam nañ baat bi bu baax xam nga luñ ko wax indil beneen baat bu dul bii waaw indi beneen baat bii parce que ñooñu ay nit lañ parce que xam nañu ñoom ay gor lañ suñ ko waxee ba pare rek war nañ pare ci lépp lu dul laa ilaha illa allah moo tax ñu lànk ñu ne ko indi beneen baat laa maabuda bi xaqin illa allah gis nga laa maabuda bi xaqin illa allah loolu la baat bi firi mooy waruñoo jaamu waruñoo yaakaarati waruñoo bëggati ku dul yàlla tabaraka wa taala wa qaalu ñoom lii lañ tont ñu ne ko ajaala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujaab waa yow ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett nekk ci biir kaaba gii yow nga ñëw bëgg a indi benn ñun daal waaru nañ dégg nga ñetti téeméeri yàlla ajaala al aliha ndax da ngaa bëgg a def yàlla yépp ilahan wahid benn yàlla inna hada la shay'un ujaab lii mbir mu doy waar la ba ñu lànkee ne duñu wax baat bi fa qaatalahum mu xeex ak ñoom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga dafa xeex ak ñoom li yakuna diina kulluhu lillah bi xilaafi xaali baadu man yantasibu ila alislam alyawm yoon dafa xeex ak ñoom yàlla ne ko xeexal ak ñoom fa qaatiluhum xatta yashhadu bi an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah jëlal jaasi daggal baatu képp ku ko bañ a wax yonte bi takk xare jël jaasi ñi ko nangu mu bàyyi leen ñi ko nanguwul mu dagg seen baat ñi nangu dund baat bi mu bàyyi leen ñu dund ñi nanguwul dund baat bi mu jëlee leen ci kaw suuf parce que sobe lañ dañuy yàq kaw suuf lu tax li yakuna diin kulluhu lillah ndax diine jëpp jëpp nekk ngir yàlla kese du nekk ngir kenn tey nag booy xool fam wuute bi xilaaf haali baadu man yantasibu ila alislam alyawma yaquluna la ilaha illa allah wala yarifuna manaha fatajiduhum yusallun wa yasumun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa maa dalika yad'una alambiyai walsalihin aw gayru zalik min almaabudat day gis tey mbir mi dafa am wuute ci lenn tey ay nit yuy dund ci lislaam ñu ngi wax la beneen bi sax bu gën a garaaw mooy laa ilaha illallah bi ñuy wax Sénégal dafa wuuteeg laa ilaha illallah bi nekk ci alquran beneen bi mooy këru diine yi nekk ci Sénégal yépp ku nekk da nga am sa façon nooy waxee laa ilaha illallah ku nekk da nga am façon d'accord ngeen ci wala d'accordu leen ci ku ci d'accordul na yëkkati loxo ci façon kër yi nu ñuy waxee laa ilaha illallah kër gu nekk am nga d'accord nga ci wala mani façon laa ilaha illallah bi nu ñu koy waxee këru diine yi ku nekk da nga am façon bokkoo keneen d'accord nga ma continuer wala ma indi misaal ah jërëjëf hëy la hëy la ah ñooñu ñan ñoo ko moom laay laay laa ñan ñoo moom boobu ku nekk am nga ku nekk bokkoo te laa ilaha illa benn la jarul wuute laa ilaha illallah jarul wuute waaye fii parce que man bokk maag kii kon na ngeen ko utee beneen ton ni ngeen ko utal beneen nu ngeen koy daanelee nu ngeen a laa ilaha am na ñooñu ko moom ku nekk da loolu baaxul laa ilaaha illa benn la warul am wuute warul am gis-gis ñun ñëpp ñoo ko bokk màkk ba sow jant yëpp benn baat la laa ilaha illa allah warul am wuute warul am différence ah xoolal loolu xoolal loolu ñooñu bañ duñu wax sax laa ilaaha illa am na ñoo xam dañu yokk hamzatu istifham a laa ilaha nekk ci néegu yàlla naan ndax yàlla am na a azhabu mooy lan a akulu a ashrabu ba ne a kon hamzatu istifham la kon yooyu ay mbir la yoo xam ne ixwaan laa bëgg ñu bàyyi ci xel balaa seytaane di ñu këf yu ci ëpp nag amaana sax yenn saa yi ña koy def duñ ko ci jublu mais seytaan seytaan mooy ñëw parce que xawmu nuux gis ngeen seytaane mooy ñëwoon ne leen laa tazaruna alihatakum wala tazaruna waddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasra seytaane moo ñëwoon taaralal leen mbir yi kon yenn saa yi sax peut-être ñi koy def duñ ci jublu waaye seytaane mooy ñëw utal ne la non non gis nga ñoom diw nii lañ koy waxee yow utal ci gars yi benn taalibe boo xam ne mën na kii ba mu orne ko seytaane daal di def loolu dañ góorgóorlu mbokk yi kon nga gis tey lu ëpp ci ñun ci ñuy dund diine di ñaan ay anbiya ay yonent di ñaan ay yonent di ñaan nit ñu baax wala ñuy ñaan leneen ci mbir yu ñuy jaamu lu dul yàlla tabaraka wa taala fa waqa'u fi shirki l akbar allazi yunafi kalimati tawxid ba ñu defee loolu lan la leen jural mooy ñu daal di daanu daal di sóobu ci bokkaale bi gën a màgg nag mooy shirkul akbar bi yàlla dul baale bi yàlla ne innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna ku ma bokkaale rek effacé naa sa tur ci waa aljanna bokkaale boobu nga xam ne yàlla nee na inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha ku ma bokkaale duma la baal beneen bàkkaar boo def mun naa la koo baal ba mu des bokkaale ba ñu laajee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga wutal yàlla ndend te xam nga ne yàlla la bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tribunal bi gën a mag ëllëg yowmal qiyaama nit ak jinne di ci taxaw mooy ana wal ins wal jinn fi nabain azim axluqu wa yubadu gayri wa arzuqu wa yuskaru siwaaya bokkaale ko waral yàlla nee na maa bind ñu bàyyi ma jaamu keneen may wër sa gëla ñu xéewal keneen kon mbokk yi ñu bari tey ci xeet wi ci xeetu lislaam ci Sénégal ak ci àddina bi dañoo dugg ci bokkaale di ñaan ay nit tey xam ngeen démb wala barki démb ba tey jii sax am na ñu def tey yowmul ashura su ngeen jàppee seenu télévision yi ngeen xool ñenn ñi la hawla wala quwwata illa billah da ngay xam ne doomu aadama yi ba léegi ñu ngi nuur ci bokkaale da ngay gis ku tëdd ci bàmmeel ba xëm ñu jël la yóbbu hôpital bàmmeel da ngay gis ku jël jaasi dóor boppam ba yax yi génn gor boppam ba yax yi génn am na ci dëkk yoo xam ne ay jaasi jaasi or lañ defar ñenn ñi paaka xaalis di ko dóor seen bopp nee nañ dañoo tuuroon deretu yonent waa kër yonent bi te ci bisub tey bi dañoo war a tuur seen deret am na ci dëkk yoo xam ne ñetti fan a ngi nii nelawuñ depuis le 8 le 9 le 10 duñ nelaw dañuy dóor seen bopp di am na ñoo xam ne ay chaîne la ñuy yor chaîne dañoo dóor seen yaram yi ba yaram yi yàqu loolu ban islam la islam di la wax nga nga mbugal sa bopp jël chaîne di dóor sa bopp wala jël jaas yi di jam sa bopp islam musul wax san daal loolu ban diine la loolu moo tax ñoo xam ne ñooñu dañoo réer kon yooyu yëpp nag lu ko waral mooy topp bànneex nit bu toppee bànneexam dootul xam dëgg gis nga tey ñun fii ñu bëri ci ñun bànneex lañ topp looloo tax dootuñu gëstu dëgg te jullit dëgg da moo ko war a yitteel fu dëgg nekk rek nga dem mais ñun tey dëgg yitteelatuñu ay farfarloo fii laa bokk kon ñooñu lu ñu def noonu la léeg-léeg nga gis nit bokk foo xam ne ñu ne ah yow fi nga bokk benn waaye ndeysaan dañ ko woox ci weeru koor ki ma doon nettali seen boobu fii la ma ko doon nettali ci biir jumaa ji waa ji commerçant la ci marché Zing ci weeru koor day jaay ba ci yàgg rek benn waaye ñëw ne ko sunu sëriñ ñëw na mu ngi sama place toog mu ñëw fekk sëriñ baa ngi naan mandi ci weeru koor mi ngi naan mandi bay lang ñu ngi ko tegal benn chaise mu toog bëkk néeg bi mu ngi toog ci wetam léegi nag taalibe yi ñëw di xool sëñ bi ak pour mu ñaan bëkk néeg bi ne leen ah bu leen xool li mu def waaye xool leen doomu kan la gis ngeen bu leen xool li mu def mais xool leen kii mooy doomu kan waa ji nee na man ma tourné man jëm sama place continué jaay kooku am na xel duñu xool doomu duñu xool li mu def mais nañ xool mooy doomu kan xatta bu doon doomu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam weeru koor woorul ba pare màndi xatta laa wax bu doon doomu yonent bi jar jaru la jege waxuma laak nag doomu uy waaw kon mbokk yi ku jaamu yàlla perte moo tax boroom xam-xam bi ba muy joxe misaal mu ne fala xayra fi rajulin juhalin alkaafir alamu minhu la ilaha illa allah koo xam ne yow yéefiiru màkk ñoom abu jahlin ñoom umaya bnu xalaf ñoom aas ibnu wail ñooñu ñoo la gën a dégg laa ilaha illa yow julit yow xam nga ne doo jag ku ñoom ku ñoom abu jahlin gën a dégg baatu laa ilaha illa allah da ngay gis ci kaw suuf tey ay nit ñoo xam ne ñoom abu jahlin ñoo leen gën a xam baatu laa ilaha illa parce que ñoom bi ñu xamee baat bi dañoo lànk bañ ko wax ba pare contre baat bi di xeex pour baat bi bu mu tasaaroo parce que xam nañ ko gis nga ñun fii baat bi fan lañ koy wax ci dansine yi baat bi fa ñan ñoo koy woy chanteur yi baat baa ngi yëngu leen mi ngi ravin mi ngi cosaan mi ngi mi ngi baat bi fu fu fu ñuy fu araam fu ne nga simbkat yi sax moom la ñuy jate simbkat yi simbkat yi moom la ñuy jate Sénégal foo tourné dégg ko ñu changé ko di ko waxee terme yu leen neex di ci yokk di wàññi ixwaan yi fal waajib ala al abd ifraadu llahi bil ibada xata la tahbatu amalahu allati yarju an tanfaahu fi l axira fa yakuna fa yakuna min alladina qaala allahu fihim wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura mbokk yi li war tey li war cib jaam li war cib jullit ifraadullahi bil ibaada mooy na fexe mu kennal yàlla ci jaamu gi muy jaamu yàlla na ko kennal balaa jëfam di yàqu jëf ji nga xam ne moom la yaakaar ëllëg yowmal qiyaam jëf jooju moo koy jëriñ li nga yaakaar ne ëllëg moo lay jëriñ boo ko yàqee ndax boo demee ëllëg dina la jëriñ du la jëriñ bis boo yàqee say jëf yonent yàlla Muhammad nee na yatbaul mayit salaasa ku dee ñett lay gunge mu ne fa yarju isnaani fa yabqa waahid mu ne ñaar ñi dañuy ñibbisi nga continuer ak kenn ki kenn ki mooy kan mooy say jëf al amal amalu saalih moo tax yàlla ne man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalih wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad ku mu wóor ne ëllëg yowmal qiyaam di nga dajeek yàlla mu ne na nga góorgóorlu ci jëf ju baax balaa ngay dem ëllëg yowmal qiyaam nga fekk say jëf yépp yàlla daal di koy def pënd ak poussière yàlla mu ngi wax ci Qur'an ci suuratul furqaan aaya 23 mu ne am na ñoo xam ne dañoo jëf ay jëf yu toll ne montagne ci ay jëf yu baax waaye ñu ñëw àllaaxira ñu fekk man yàlla def naa ko habaan mansuur pënd ak poussière yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi loolu moo doon darsu tey ci buntëb tafsiru tawxid wa shahaadatu an la ilaha illa allah ci téere bu tudd kitaabu tawxid bu muhammad cheikh muhammad ibnu abdul wahab ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum